saa bu la nit waxee naan lu ma nëbbut yàlla du ma ko nëbbu mbindéef nee ko boo sangootee ba noppi jaru ngay sol yëre ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu la yàlla suturaalee da ngay suturaal sa bopp te sëriñ moo Aminta Fall da daloon wax naan li ngeen rafetle dee leen ko wan sëñ bi li ngeen ñaawle ngeen di ko nëbbu kon nëbbal say teef ndax boo ko nëbbee képp ku koy séentu si yow kooku baaxul ndax Cheikh Ibra Fall moo wax ne kuy xool nit di gis si moom lu bon kooku baaxagul